عليك صلاة الله di leen tatagal di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ne bokk na ci bis yi ñu yaakaar ci ci weeru koor wi weeru koor wi nga xam ne yàlla def ko wàcc muy barke mu àcc ci alxuraan euh, ba pare ñun ñu am ci ñaari feet ndax weeru koor xewal la ci mboolem lu mbindaakoon yi ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi yàlla wax na ko ne ko yónni ma la lu mooy nga ñëw indi yërmaane ci mboolem mbindaakoon yi lépp lu yàlla bind rek am nga kado bu jógee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nga xam ne yàlla yónni na ko mu ñëw indi ko ci weer wi la ko ko yàlla tànnaloon ñu ko ko tànnalee mu ne mu ne mu ne pour jubal nit ñi xamal leen la ci yoonu njub après mu tànn ko ci weeru koor mu ne mu mayaat ñu ci beneen bëris ne weeru koor am na gën guddi goo xam ne moom mooy laylatul qadr mu ne mooy jën moo gën junney weer waxut ne mooy moo waxut ne tolloo naa junney weer waaye moo gën junney weer te junne weer mooy juróom-ñett fukki at ak ñeent ak ay ay toftal loolu yëpp ñëw ci weeru koor wi weeru koor wi le ci bisi nga xam ne ci la yàlla wàcc alxuraan yàlla may ci Mawlana Cheikh Ibrahim mi tam nga xam ne amul sikk ne xalifa la ci xalifa yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xalifa la ci xalifa Cheikh mu daal di ñi mu ne moom itam ñaan na yàlla wàll yu bu nekk yàlla may na ko mandarga boo xam moom lay mandargoo yàlla na def alxuraan muy mandargaam kon nag euh, mu mu moo tax mu ne moom mbëggee la moom muy su wàccee rek égaat wàccee rek égaat maanaam su ne minal jinnati wan naas rek moo tax sax xatma bi bàyyi def noonu suñ suñ su soo jàngee ba ci minal jinnati wan naas da ngay jàng alif laam fatiha jàng alif laam waaye ne commencé nga wàcc nga égaat nga Cheikh Mouhamadou Lahadi nag loolu moo doon yal na yàlla yokk leeram moom loolu moo gën moo moo loo gën a fës ci mbiram ah, man ci moom loxoom laa yaroo ndax bi ñu amee juróom-ñaari at dara boobu daara ji ci walax la nekk suñ naan dem suñ suñ su ñëwee àllarba alxames ba ñuy ñibbi ñibbi di ñibbi Kawlax ca daara ja fa daara ji nekkoon noonu foofa ku nekk dañ la daan jox ne Eh, juróom fukki dërëm yi nga jox ko sa alal ba sa sëriñ juróomi dërëm nga jox ko sa mag Cheikh daal Ali ma doon suma mag moo doon suma tànneef ndax réew ne niñ bokkee ci baay noonu lañ bokkee ci ndey ndax papa yaayam ak papa suma yaay ñoo bokk ndey ak baay waaw mu daal di dem nag benn bis baay taxaw na ci otoom ci kaw la ca daara ji ñuy génn mu ne kaay kaay leen fu ngeen jëm fu ngeen jëm mu ne nu ngeen di àndee mu daal ne jël ne aadi jox ma sa loxo mu jël ko mu teg ci suma loxo ne ne ne ne ne ma kii maaxi naziru jox ma sa loxo mu mu teg ci loxo maamun ba pare mu noonu la ak yoon lu àndoo boobu nag dinañ àndoo dëgg ba ba ba ba bi ñu yàlla di tàggale ñu nekk ànd boo xam ne moom rek laa xam waaw yu bëri moom ndax semaine bi ca fële lañ ko daan defee te ci loxoom laa daan nekk après biñ ñëwee fii itam ku tare alxuraan ñoom bi ñoom biñ tare bàyyi dafa mayoon dafa doon juróomi nekk benn bi naziru benn bi maaxi benn bi kii aadi benn bi lëmin benn benn bi aaxibu bi ñooñ tare alxuraan ñu itam ku tare alxuraan dem sa néeg mag bi ma taree alxuraan dem fekk euh, néeg Mouhamed ma dëkk ak moom boobu amul soxna amul dara maa xëy lal lal bi defaral ko dafa kii waaw yëppam suma yëpp yëppam daal mooy suma yëpp yàlla boo nañu boole boo xamee nag xamee naa ci jàngee naa ci moom jikko yu bëri takkoo alquran waxtu nekk balaa def dara dana takkoo alquran du def ko def nekk ba yàlla tànn laylatul qadar de oo sëñ daara yi di màggal bi si alquran waaye dafa fekk loolu mu doon aadaam jikkoom boo xam ne def ci chronique waaw ba nga xam ne ku koy roy rek soo jaar jaaram yi su xëyee soo ba ngoon ni mu doon ni mu doon dundee mais nun laa miin di ko dundee kon nag bi sa tey bi ñu ngi koy màggal fekk daan nañ ko def ci daan nañ ko def àddina bépp di dajee di ñëw am na ñu daan jógee Dakar ak ñu daan jógee gàmbeek ñu koy jógee fu nekk waaye nag li nga xam ne ren yàlla dafa def gàllankoor bi gàllankoor bi dafa mel ni natt la waaye mën naa am xéewal la euh, ndax euh, terewut nit ñaa ngi jokkoo terewut nit ñaa ngi def lañ doon def kon nag bisab tey bii nga xam ne bis la boo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim ci la daan xatma kaamil bi mas bi ñuy jàng ci suñ suñ noddee timis moom itam bët seen ñaari isib la ñuy def comme liñ nar a naafila moom lañ moom la ñuy jàng ci ci ci rajo ba ilimaam doon a ñëw jàng ko Cheikh Mouhamed Haadi nag bis bii dafa bàyyi Mawlana Cheikh Ibrahim doon moo daan jiite bis bi laylatul qadar ne ñi nga xam ne dañoo am fit dañuy wax ne tey la laylatul qadar waaye moom dafay wax ne bisi ña saba wa shirin maanaam bisam ñaar fukk ak juróom-ñaar ndax werante nañ ci yonentu demoon na ba di ko wax ba di wax ne ne ne xamal nañ ko laylatul qadr di xuloo bañ ne bañ bañ ne noppiloo yonentu fa tax ngeen fàtte naa sax li ma waxoon mu ne waaye ala kulli xaal li ci mën di am fukki fan la ci fukki fan yu mujj yi lay doon ba pare mu ne séentu leen ko ci bisi yu tool yi su desee juróom-ñeenti fan ak su desee juróom-ñaari fan ak su desee juróomi fan bii nag moom mooy bu mujj bi nga xam ne moom mooy kii la waaye Ibnu Abbas wax na ne soo jaaree surat inna inna anzalnaahu par xaraf nga di ko compte léegi salaamun hiya soo àggee ba ci salaamun hiya mooy mooy mooy mooy moo bi nga xam ne mooy 27 mu tolloo kon 27 mu ne kon sababa shirin mooy mooy kii bàyyi nag doon ko feetu feetal ko ñooñam Cheikh Mahmoud Dahal itam ràññeekoon ci lool su boobaa ñiy liggéey ci alxuraan gune daara yi ak sëriñ daara yi ñëpp daf leen di dajale ak magi diine yi dajale leen tere leen di ko def ci bi mu fi jógee itam yal na yàlla dëgëral gannaawam Cheikh Baye Mouhamadul Haadi moom itam taxaw taxaw booba wax naa ko ne sa baay semb nga ñëw àggale ko lu jafe la waaye yàlla dimbale na ci yow ñëwoo em ca fam emoon waaye da koy yokk ba nga xam ne international kon nag suñ naan dajee di ko def ci bunt kër Cheikh Mahmoud Haadi tey yàlla def ñu am ay gàllankoor ñu def ko nii waaye yàlla la mayoon du ko nangu mukk la àddina moo tax may nañu média bi nga xam ne mën naa kenn ku nekk ñi ci Amérique ak ñi ca ñi ca France ak ñi ca bitim réew yëpp di ko déggandoor kon lu kon yëf yi wàññeeku waaye dafay yokk yal na yàlla tas ci barke alquran yal na yàlla fayal Cheikh Mahmoud Haadi yal na ñu yàlla fayal. bàyyam Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moom moo rëdd yooyu ñu topp ci kawam ga kii bi bi mu fas mujj a fekke ci jumaa ji fi bàyyi dafa waade nit ñi gërëm leen wax nga ne li alquran ba pare daal yi mel ni dafay wax ak mel ni wax ak weeru koor ni ko ay yow weeru koor soo ñëwee dell si ñëwee soo delsee déwén da nga fekk ñi toog ci jataay bi am ci ku manqué ma ngi koy fekk incha allah ci maqaad sidq inda malikil muqtadir nit ñi dañu doon foog ne bàyyi weeru koor yi lay waxat waaye boobu moom mi mi ngi tàggoo sax mu ne weeru koor yi su desee dana fekk ku nekk ci mbooloo mi te du fi nekk waaye ma ngi koy fekk ci maqaad sidq yal na ñu yàlla taas ci barkeem euh, oman ñu ba nga xam ne àgg nañ ñu tam ci maqaama boobu di ñaanal euh, xalifa Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane ak rakkam Cheikh Mouhamadou Mahi ak imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé ñooñu nga xam ne ñi ngi taxawoo saytu taxawa pay bi ba nga xam ne la daan am yëpp ma ngay am nam daan amee xataa ci jafe-jafe ji sax ci la gën a matee kon nag yal nañu yàlla uh, may barke alquran yal na ko fi yàlla saxal yal na yàlla sàmm ñëpp ñu ngi gërëm uh, seen taxawaay fii appareil bi ak microphone yi nga xam ne yéen a mën a jotal uh, bu njëkk Aliou Diagne yal ko yàlla yërëm ba ci doomam ji nga xam ne mooy jot su bàyyi waxee mu wax Euh, waaye yéen emu leen foofu rek waaye su baaxee waxee ngeen waxe ba pare wane ba ca bitim réew yal na yàlla dëggal seen taxawaay te barkeel seen liggéey ama zalika alallaahi bi aziim amiin amiin amiin